sëriñ Fallilu mooy noobalu islaam fi nun mboolem sëriif yi moo ci gën donay Useynu wal Hasan may xaadamam ci xarnu bi mbokk yi jàkkaarloo ñun ca duñu seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalal xalif général kulu murid Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér sëriñ Abou Baraka xalifa Cheikh Mouhamadinil Fadil ak mbooleem njaboot ak Cheikh Mouhamadul Fadal gépp ci kilifteefug sëriñ Jili Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke sëriñ Mamor Mbàkke moom sëriñ Modou bu Dieng moo am mbégte di yëgal mbokki jullit yi mbokki taalibe yi xarit yi soppe yi wëllëri yi am di jàmm yi képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah bis bu mag bisub diine bisub lislaam bis bi nga xamante ni ci la ñuy fàttaliku gane àdduna suñu jàmbaar ja di Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke muy bisu kasu rajab ni mu ko baaxoo defee xam na ni léppam Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké Falilou Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké Falilou daa jël léppam joxoon ko way juróomu sell wa di Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké loolu yi moo tax Serigne Mamor Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké Falilou at mu jot mu koy ànd ak mbooleem xarit yi mbooleem soppe wala rek am di jàmm yi rawatina njaboot ak Serigne Touba gépp nee na mi ngi ciy woo képp koo xam ni mbégteem sa mbégte nga Serigne bi ne mi ngi la ciy woo tàmbalee ko Daaru Xuddoos kër Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci kër Cheikh Mouhamadou Moutada kër soxna Faat ji ba ci kër soxna May mbooleem seex yi bàyyut kenn sëriñ maam moo a nga xam ne ni képp koo xamante ni dalaa lebaloon boor ca nga war koo fay si fay si ko ci bisu Kazu Rajab bile képp koo xamante ba nga koo lebal itam lebal ko ci bis bi ndax dana fay si ndax amul benn bés boo xam ni moo gën a kawe bés bi di bisu Kazu Rajab mu koy amee ca forage su bàyyi laat ni mu ko baaxoo defee at mu jot ànd koog mbooleem ay mbokkam ànd koog mbooleem taalibe yi xarit yi soppe yi wëla reeg am di jàmm yi bis ba nag bisub xasida la alquranul karim istixfar salaatu ala nabi basmala ngir woote woote boobu moo tax ñu ngi toog fii ci këram. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki julli di mbokki taalibe yi yéen ñi nga xam ne yéen ñu seetaan tey ñoo ngi fii si kër sëñ Maam Mor Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Moustapha Fadilou di woote bis bi nga xam ne mooy màggalu Cheikh Mouhamadul Fadal di Kazu jàpp ñu jàpp ko nag le 17 février di ko amalee këram gi si Touba Forage Baye Lahat corniche si belal foofu si biir Goutte kon nag daara alxuraan yëpp yi nga xam ne ñu ngi si forage Touba Ilahat ñu ngi leen woo si njiital sëriñ Xaali Jaxate mi nga xam ne moo jiite rabita bi ak sëriñ Abdoulaye Jaxate ak daaray sëriñ Modou Mbay ak daaray Baye Xaadim Silla ak daaray sëriñ Mbàkke Sàmb ak daaray sëriñ Baara Ndiaye daaray sëriñ Modou Thiam ak daaray sëriñ Maam Góor Kan ak daaray sëriñ Aliou Mbay daara ak mbooleem daara yi nga xam ne ñu ngi si forage Touba nañ ko daan defee rek bu ñu xëyee ñu àndandoo jàngal xuraan kon sëriñ mi ngi koy fàttali mbooleem daara waaye nag di ko yëgal mboolem kilifa diine yi nga xam ni baaxa nañu yëg bis bi sa baaxoo si ñëw di si jiital nag sëriñ Xalil Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Mourtala waaye di ko yëgal it sëriñ Moustapha Mbàkke moom sëriñ Abdou Lahad sëriñ Abdou Khoudous moom sëriñ Abdou Lahad sëriñ Cheikhouna Mbàkke moom sëriñ Sidi moom sëriñ Abdou Lahad sëriñ Mourtala Mbàkke moom sëriñ Sidi moom sëriñ Abdou Lahad waaye di ko yëgal it soxna Mariama Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Mourtala ak sëriñ Mbay Mbàkke moom sëriñ Ahmed moom Cheikh Mouhamadou Leen Baara waaye di ko yëgali sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Modou Fati Khady ak sëriñ Abdou Latif moom seriñ Modou Fati Khady ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ña nga koñ ba ak sëriñ Soxna bu ñaan ak sëriñ Mbaykan waaye di ko yëgalit mbooleem waa kër maam Cheikh Rahim yëpp rawatina it sëriñ Jidi ak sëriñ Ousmane ak sëriñ Fallou Fall di ko yëgalit sëriñ Mbaykan waaye di ko yëgalit mbooleem nag kilifa yëpp di ko yëgalit mbooleem dayra yi di ko commencé si sa bi nga xam ne ñoo ko baaxoo daan def si koñ ba di si jiital sëriñ Cheikh Gueye di ko yëgalit di ko yëgalit dayra Wakana Haqqan sëriñ Abdoulaye Diagne ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la ko baaxoon a àndal ñoo ngi leen koy fàttali leen ko yëgal Miftaahu Saada sëriñ Kababa Makaarimul Axlaa sëriñ Ibrahima Sarr sëriñ Masek dayra Maxaalix sëriñ Daam Diop ñoo ngi koy fàttali bu baax dayra Nooru Daaray ni sëriñ Xaadim Sarr ak mboolem dayra yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi si bi ñoo ngi leen koy fàttali di leen ko yëgal mboolem waa mbootaay gi nga xam ne daanañu ko ànd ak ñoom it soxna farigay jiite ko ak soxna faati baabu ak mboolem mbootaay yi nga xam ne ñu ngi si bi ñoom ñëpp ñu ngi leen koy fàttali te leen ko yëgal ak daayira yi nga xam ni ñoom ñëpp ñi koñ bi nañ ko na àndandoo rek kon ñëw leen ko yëgal di leen ko fàttali waaye rawatina it waa kër sëñ Bay yi nga xam ne ñoo nekk njaareem ñoom it ñëw leen koy fàttali di leen ko yëgal li si jiitale sëriñ Xalifa Saar ak sëriñ Bay Bay Moussa Thiam mboolem daayira yëpp sëriñ bayut kenn kon mi ngi leen koy fàttali di leen ko yëgal nañ ko daan defee rek fas yéene ko àndoo noonu lañ ko fas yéene àndoo mboolem kilifa diine yi nga xam daan nañ fa teewit fàttewuñ si kenn waaye di ko yëgal sëriñ Assane Mbacke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ak sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Mouhamadou sëñ moom sëñ Abdou Fata moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ak mboolem dayra wilaay yëpp fédération bi ñu ngi leen ko yëgal njiite sëñ Ousmane Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ne moo ko jiite ak sëriñ Cheikh Diop Kaylel mi nga xam ne moo jiite comité directeur wilaya ak sëriñ Ahmadou Ndiaye Ngiraan ak sëriñ Aliou Niane mi nga xam ne moo jiite dayra wilaya Nasro kon mboolem daayira yëpp ak daayira Axbaay Xadim ak daayira jamaatu bi nga xam ne sëñ Baarloo moo ko jiite di si jiitali sëñ Moustapha kon daayira yëpp ñu ngi leen koy soññi di leen ko fàttali ak jànk jànkati alxuraan ak jànkati xasida yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullah bokki jullit yi bokki taalibe bokki dëkkandoo yi waaw ah, soppe yi am di jàmm yi xarit yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare te di ko sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñëpp jàmm yàlla def jàmm di tàmbalee suñu siyaare sëñ Mamoor Mbàkke moom sëñ Moodu Busa xaliye sunu sëriñ sunu yaakaar yi teeg ba lëggee noo koy siyaare di ko ñaanal yàlla na fi yàgg te wér Allaaji Fàllu nu di leen yëgal nag bisub sëñ Fàllu bi nga xam ne sëñ Mamoor Mbàkke da koy def fee ci forage bàyyi laat mooy këram googu mu ko daa defee ah maa ngi koy ñu ngi koy yëgal nag sëñ Modou Boussa Dieng ñu ngi ko koy yëgal te di ko séenu di ko yëgal sëñ Ma Njaay Njaay di ko yëgal Sidna Ousmane gay di ko yëg sëriñ di ko yëgal sëriñ Ablaye Touré te di ko séenu maa ngi koy yëgal Baye Sadda magum Kajoor maa ngi ko ciy séenu a ah, di ko yëgal sëñ Abdoulaat Sall di ko yëgal sëñ Sidna Ousmane Gaye te di ko ci seenu di ko yëgal bokki jullit yëpp mboolem koo xam ne rek ah eh, ci ab taalibe nga mbaa nga yaakaar sëñ Mamor ñi ngi ñi ngi la ciy seenu waaw ma maa maa ngi koy yëgal sëñ Modou Fati Dieng borom café gi ñi ngi koy yëgal te di ko seenu te di di ko siyaare ah maa ngi koy sëñ Cheikh Kane ñi nga xam ne dama bokk ak ñoom rajo ICAP a ah, di ci waxtaan ak ñoom képp ku ciy dégg sama kàddu rek maa ngi la koy yëgal di ko di ko yëgal sëñ sëñ Mor Gueye te di ko séenu maa ngi koy yëgal sëñ Mamadou Bari ak Mamadou Morone képp koo xam ni maa ngi maa ngi jokkoo yow rek ci rajo bi maa ngi la koy yëgal di la séenu. waaw sëñ Maamoor sëñ Ibrahima maa ngi ko koy yëgal. Ah, mboolem koo xam ne rek ah, soppe sëñ Maam Moor nga di ko yëgal Aliou Samb Alié maa ngi ko koy yëgal ji sëñ Maam Moor nag ku mu woo ku ne da nga koo war a wuyu ndax xeebalut kenn bisam cëful kenn yit xeebul kenn soxla su ay am boo ko ko waxee lu mu ko fekk dana ko bàyyi bàyyi ay yitteem jàpp ca soxla ba soxla sa mat kon nag kooku ku mu woo ku war nga ko wuy ji waaye mboolem koo xam ne daal suñu am di jàmm nga mbaa di nga di soppe mbaa nga def xarit mbaa ngay dëkkandoo ñu ngi loo ci màggalug sëñ Fallou gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziare di jiita ci nuyoo bi ak ziar bi suñ kilifa gi ñun toogal di sëriñ Mamour Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Moustapha Fadilu ak mbooleem ñi ci jataay bi ñëpp mu mel ni comme ni ko ñi jàll waxee rek ku gis jataay bi xam ni ñu ngi waajal bis boo xamante ni si ne yàgg nañ koo taxawee muy bisub si Seex Muhammadul Faadilu kon bu ko defee sëriñ bi mi ngi woo mbooleem kuy jàng xasida ak noo ciy doxee rek moo xam ñi rajas moo xam ñi kuréel moo xam ñi koy durus moo xam ñi koy jàng njàngum aw ndax ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sëriñ bi jëflante na ak yow ca la nga nekk kon nee na mi ngi ci woo ñëpp nee na itam mi ngi jiital ci woote boobu e, ki nga xam ni ku nekk xam na ni e, Cheikh mun Mountakha e, doyloo na ko ba jiital ko ci xasida yi muy xam Hamsatu Mbàkke moom Serigne Souhaïbou nga xam ni lépp lu ñuy woote ci xasida yi rek moom lañ ciy jiital nee na itam mi ngi woo mbooleem kuréelu xasida yëpp bàyyiwut kenn waaye itam du ñàkk mulim lim kuréel yi nga xamante ni sii ne at mu jot mook ñoom ñoo koy ànd ci bëccëgu màggal gi buñ xëyee ci suba gi ba tàkkusaan ji ci jiital kuréelu mafatihul bishri bu sëriñ xaarim saar ci njare nee na sëriñ bi nee na mi ngi leen ci woo bu baax a baax di woo itam kuréelu naxjul xawim bu sëriñ xaadim caam jiite ko nekk foofu ci kër sëñ Cheikh Reen di woo it sëñ Cheikh Reen mi nga xam ne mooy kilifa kuréel gi bu baax a baax nee na itam mi ngi woo waa kuréelu Jazbul Xulóob bu gade si njiital sëriñ Ibrahima Fall ak kuréelu uh, Matlabul Fawsayni ci njiital sëriñ Cheikh sëy ak sëñ Aydara Diop ca gede ak mbooleem kuréel yi nekk gede yépp nee na itam mi ngi woo kuré kuréelu Nooru ni ci njiital sëriñ Maguette Sey ak kuréelu maxaalifu niiraan si njiital seriñ xaadim Ndiaye ak sëriñ Mohamed Guèye at mu jot ñoom ak sëriñ bu ñoo koy àndandoo ba tàkkusaan nee na itam mi ngi woo kuréelu mafaatixul jinaan eh, bu daaree Baye Modou Mbaye te sëñ maam Cheikh say jiite ko di woo itam eh, daaray jaalibatul maraaxib nga xam ni ku nekk xam ne seen taxawaay ci durusum xasida nee na mi ngi leen ciy woo ci njiital sëriñ Saliou njaay ak sëriñ Saliou Guèye di woy itam soppe sëriñ saaliw bu sëñ Mafal Jaañ bu baxdaat gi ku nekk xam na seen diggante sëriñ bi nee na mi ngi leen koy soññ bu baax nee na mi ngi woo tamit kuréelu jasbul xulóob si njiital sëriñ maam góor nger ak mbooleem fédération nooru daari ni bi lëkkale kuréel yi nekk ca gox boobee mu koy defee ci di korni si belal nee itam kuréel yi nekk fii mu dëkk ci allié gi mbooleem kuréelu xasida yi fi nekk yépp ak mbooleem kuy dox ci xasida te féetee fii ci Alieu mu ngi la koy fàttali te di la ci woo ñu àndanoo ko kuréel ya nekk foofe mu koy defee liggéey liggéeyanoo ci sëñ Fallou nee na itam mi ngi woo mbooleem jànkatu aw yëpp buñ ci tuddee sëriñ Xaadim Géey ak sëñ Ahmadou njaay mi nga xamante ni si ne at mu jot mooy yeggale guddi gi dina yóbbaale ñëpp nee na mi ngi woo ñëpp ñëpp ñëpp bàyyiwut kenn nee na itam mi ngi woo xaritu boppam ak soppe boppam sëriñ xaadim mati lay di ko yëgal bis bi te di ko ko fàttali bu baax a baax kon ñi ngi soñ ñëpp ñu àndandoo ko comme nañ ko daan defee ca forage baylaat buñ xëyee waxtu fukk fukki waxtu muy 10 heures ñu commencé àndandoo ko ñiy jàng alxuraan ak ñiy durus xasida ak kuréel yi ñëpp ñu taxawee ko noonu ba tàkkusaan bu tàkkusaan jotee mbooleem képp koy jàng njàngum aw wala nga yëkkati baatu laa ilaha illallah di sikkar ñoom it e, tàmbali ba fajar di ñaani lépp luñ ci def sëñ bi nangul ñu ko ci barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di ñaan suñ kàddu fekk leen ci jàmm di am Cheikh Mouhamadul taxa di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu te ko. ba li mu fas yéene ci liggéey borom Tuubaa yi mu defee ko nu kawe njortam te ànd yëpp di ñaanal suñu wasila bi Serigne Mamour Mbacke ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te gën koo kàttanal ba lépp lu mu fas yéene ci liggéey Cheikh Mamadou mu defee njortam ànd koog mboolem taalibe yëpp. di rafetlu bu baax a baax jotaay bi mu mel ni dañoo ñëw ngir waajal bis boo xamante ne si benn bis la ci bis yi nga xamante ne si moom la sëriñ bi di màggal muy bisub Cheikh Mouhamadul Moustapha Fallilou ñuy woo ci turu daara yi ak turu daaira yi nga xamante ne si ne ñoo nekk fii ci Touba Aliya di jiital ci turu daara yi sëriñ Daouda Foun ak sëriñ Aliou Dia sëriñ Ousmane Sall ak waa daay waa waa daara yi sëriñ Sadeex ak waa daaray sëriñ Moustapha Guèye Mbodj di woo mboolem daayira yi nga xamante ne si ñi ngi nekk fii ci Allié di ci jiital waa daaira Fatul Wahab ci njiital sëriñ Abdul Karim Kebe ak waa kuréelu Wakana Haqqan bu daaira Fatul Wahab di woo waa daaira soppe sëriñ Mamor Mbacke ci njiital sëriñ Xaadim Ngamb ak soxna maam Jaara Njaay di woo it waa daayira soppey maam Cheikh Ibrahima Fall ci njiital sëriñ Alaaji Touré di woo it waa daayira soppey sëriñ maam Mor Mbàkke jéggital yi ci njiital sëriñ maam Thierno di woo it waa daayira inna allaha maana ci njiital Baye Manar di woo it waa daayira Miftahul Xuyur wal Maram ci njiital sëriñ Xaadim Sàll ak sëriñ Thierno di woo it waa daayira soppey sëriñ Baara Mbàkke ci njiital sëriñ Asan Sàll di woowit waa daaira xidmatul xadim ci njiital sëriñ Ousmane Ndiaye di woowit waa daaira soppey sëriñ Mamour Mbacke daaru xadim ci njiital sëriñ Saliou Guèye di woowit waa daaira mawaahibul maafiq ci njiital Maam na Ndiaye di woowit waa daaira soppey sëriñ Abdul Karim ci njiital soxna Faati Dieng di woo mboolem daaira yi nga xamante ne seen yëpp ñi ngi nekk fii ci Touba Alieu mel ne dañoo xaw lot ci lim gi waaye ñi ngi woo ñëpp ak soppe ak am di jàmm yi ñëpp bàyyiwun kenn di woowit mboolem kilifa yi nga xamante ne si nit ñoo nekk fii ci Touba yi di ñaan yàlla suñu borom yóbbuñu ci bis ba ak jàmm ñu fekk ko ak jàmm it te ànd ci ak sëñ bi ak jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa ñooy nuyu mbokku jullit yi di nuyu mbokku taalibi yëpp di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ci jotaay bi. di ziare suñu seriñ sëñ Mamour Mbacke di ko ñaanal muy ak fi loolu te wér euh, comme niñ ko waxee ci jotaay bi rek ñuy waajal bis bu mag di bisu sëñ Fallou ñu ciy woo soppe ak xarit yëpp di soññ suñ mbokk soxna yi soxna Fat Thion ñu ngi ko ciy soññ soxna Suur ñu koy soññ euh, di ci woo soxna Yacine Sall di ci woo soxna Ndumbe Dieng soxna Mariama Mbacke moom sëñ mutala soxna Oumy Mbacke moom sëñ Xaarim Awoba di ci soññu mbooleem soxna yi ak daayira soxna laxasaay yi ànd liggéeyal Serigne Fallou ñu ngi leen ci woo di ci woo soxna Astu Mbeng di ci woo soxna Faatu Mbay soxna Bintu soxna Mbeen di ci woo soxna Aïcha bàyyiwuñ kenn di ci woo mbokku dëkkandoo yëpp xarit yi ak soppe Sëñ Fallou yëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi di ci woo waa Ndakaaru soxna Aïssa Touré ñu ngi ko ciy woo di ci woo tamit soxna Ndey Mbay soxna Xadi Mbay ñu ngi leen ci woo di ci woo xarit yi ak dëkkandoo yi ñu dëkkal fii ale yëpp ñu ngi leen ci woo ci bis kenn di sàkku seen teewaay di ñaan ku fa teew yàlla suñu borom faj say aju ci barke sëñ Fallou jërëjëf. di ci woo soxna Dior Dieng ak soxna Penda Dieng di ci woo daayira soppee sëñ Fallou yëpp jërë ngeen jëf. bismillaahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax a baax ñu ngi wax ci ndigalal sëriñ Mamour Mbacke. ñu mi ngi sëriñ bi nee mi ngi ciy woo sëñ Abdou Niang ca sëriñ bi nee na mi ngi ciy woo mbooleem taalibe kër gi képp koo xam ne si yaakaar nga sëriñ Maam Mor rek sëriñ bi nee na mi ngi la ciy woo mi ngi ciy woo sëriñ taalibe boo xam ne yaa ngi ci biir biir réew mi ak bitim réew yëpp sëriñ bi mi la ciy woo kon nag ñu bàyyi xel maanaam euh, wooteb sëriñ boobu yi ndax ab taalibe kat amul lu dul ndigalal sëriñam bu sëriñam soxlaa taaliba lu mu jàppoon da a bàyyi ngir wur si euh, wooteb sëriñam boobu kon sëriñ bi mi ngi ciy woo ñëpp bàyyiwut kenn kon nag ñu bàyyi ko xel bu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Mohamed Touré woote baa ngi noonu sëriñ Mamor nee na mi ngi woo ñëpp bàyyut kenn bàyyut fenn nee na ba tey mi ngi woo xaritam wala reem sëriñ Mbay Njaay gol bi ak mbooleem njaboot ak sëriñ waa ak mbooleem waa bi yëpp naka noonu tam di ci woo mbooleem njaboot ak sëriñ Daaru Asan Njaay tàmbalee ko sëriñ Abdou Xaadir Njaay ak sëriñ Moussa Fati ak mbooleem njaboot ak sëriñ Daaru Asan gépp naka noonu tam mi ngi woo mbooleem njaboot ak sëriñ Madiba Silla seen taxawaay bi ñu daan am naka jekk moom itam mi ngi leen di woo ci leen ko fàttali naka noonu tam mi ngi ci woo Serigne Ibrahima Ndiaye ca Barga ak mbooleem njaboot gépp waaye itam di ci woo soxna Ndey Saar eh, soxna Ndey Saar Ndiaye moom itam ñu ngi ko ci woo soxna Faati Saw ak Serigne Abdoul ak Serigne Abdou Kane moom itam Serigne bi mi ngi leen leen ko fàttali waaye itam daayira soppee Serigne Fàllu ci Touba Madiana Serigne bi ne mi ngi leen koy mi ngi leen koy fàttali daayira Miftaahu Saada njiital Serigne Malick Fall Serigne bi ne mi ngi leen koy fàttali daayira Miftaahu Saada ci njiital sëriñ Mouhamed Sène moom tamit ñu ngi leen ciy woo di woo daayira nooru daaray ni sëriñ ngañ Sëy ak sëriñ ak Cheikh Seck moom itam sëriñ bi mi ngi leen di woo ci leen ko fàttali waa sum ci njiital sëriñ Badara Sarr ak soxna Khady Faye sëriñ bi ne mi ngi leen koy fàttali daayira bu waa buleel ñi ngi woo sëriñ Abdou Dieng ak mbooleem ñi nga xam ñu ngi ci buleel gépp ci ànd ak bis bi sëriñ bi ne mi ngi leen woo ci leen ko fàttali réew maawo sëriñ bi mi ngi leen di woo ci njiital sëriñ Faye ak sëriñ Moussa Sarr di ko wocc di ci fàttali Serigne Cheikh Ndiaye Serigne Cheikh Diagne ca itali itali Serigne Cheikh Diagne sëriñ bi ne mi ngi woo Serigne Bara Gueye ca Angleterre mi ngi woo Serigne Modou Dieng ak Serigne Xataaba Diop ca Espagne ak mboolem wa Espagne yëpp di woo Serigne Serigne Thierno Gueye ca Italie Serigne Thierno Gueye ca Italie di woo daayira naari yi ci njiital Serigne Bassirou Bousso naka tam mi ngi woo daayira gàdd ci njiital Njaw Touré di ci woo waa Barga waa Barga ak waa Tawa ci njiital Serigne Fallou ci ci njiital Serigne Fallou Ndoye di woo ba tey soxna ndumbee jeng ak Serigne Saliou Ndiaye ca Guédé Serigne Mamor ne ba tey mi ngi ci woo Serigne jiili Mbacke ca euh, Serigne Jili Mbacke Baxdaat di ci woo Serigne Moussa Diop di ci woo Serigne Jili Jaxate ba tey di ci woo Serigne Fallou Fall moom Serigne Amdi Modou Serigne di ci woo daayira soppee Serigne Cheikhouna Mbacke moom Serigne Sidi sëriñ bi ne mi ngi ci woo sëriñ Jili Baara ak sëriñ Lahat Baara ak mbooleem njaboot ak Cheikh Lamine Baara gépp di ci woon ak mbooleem jullit yi bàyyit kenn bàyyit fenn bàyyit ñenn képp ku wax a asadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah seriñ Maam Moor moom sëriñ Moodu bu sañ ak nee mi ngi lay woo ci bis bi te leen ko fàttali suñu xëy deen amal njàngam alquranul karim xasaayit istixfar salaatu ala nabi ak bernde guddi gi ñu wéyal njàngam xasida yi ak mbooleem jànkati xasida yi sëriñ bi ne mi ngi ñaan képp ku fa teew yal na yàlla fay say aajo ci barkeb Seexul Xadim Xadim Rasul barkeb Seex Muhammadul Fadal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Sëriñ Fallilu mi yàlla na am li muy mébét ci nun te nu am li ñuy mébét ci moom te yàlla na ami sët yu gën a gëm waa xarnu bi.